Uras Info, Ribari Gao. Tewo, Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Djanga du te debout, notre force, le traitement de l'info. Euh, bëgg naa am ci euh, discipline boobu euh, buñ duggé ci juma ji ñu nekk nit ñu correct mhm. defar sàppe yi mhm. ñu souré ni wara souré mhm. mu jub